seen découverte tabaski 2019 euh, sunu émission nag tey nag ñu ngi ñëw fii ci Touba Guy. Loyen Touba Loyen. Euh, wala corniche rek Touba Loyen wala corniche. jaara fekk fi nag euh, sunu xarit di l'honorable docteur Alioune Sylla moom moo nekk sunu gantey découverte tabaski 2019 sëñ bi Sylla maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la dalal di la baalo àq di la baal àq. waaw ah, maa ngi lay fay bu baax jaxate di sant yàlla bu baax nag di kontaan ci li ngeen ma seet si pour ñu waxtaan ci seen émission bi la. tabaski 2019 euh, dund nañ ko. ñu fekkee ko ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. ana noo ko dundee ren ak message bi nga ci maanaam baaxee ñi lay seetaan di say soppe di say xarit di say mbokk. waa jërëjëf tabaski moom ni ma ko dundee dund sant yàlla rek. comme ni ma yaakaar aussi ni moom la ko taal bi yëpp dundee ndax tabaski moom ci sama xalaat lu ñuy lu ñuy waaj la ndax loo xam ne at ba at la wax dëgg yàlla boo dee jullit te xam ne war na la war nga lu mu néew néew nga di ko waajal di ko préparer ba moo tax it ah, man de sama wàll boo préparer naa ko ndax yàlla daf maa dimbale man damay ay yarkatu xar man daanaka jënduma tabaski depuis ba may ba ni quinze ans ngi jënduma tabaski mm-hmm. waaw ren ren def am naa ñetti xar yu ma tabaskee ma ak sama njaboot yoo xam ne jënduma ci benn. éleveur nga waaw man daal xam naa ne du ma éleveur bu mag bu waaye éleveur prévisionnel la ndax damay xam fi ma jëm. Mm-hmm. waaw mu mel ni context boobu noonu ñu bëri dañ koo dund ren euh, te jafe-jafe xar am na. Mm-hmm. Euh, lool sax ci réew mi euh, lan moo waral li ni mel. waaw man de def naa analyse bi keroog maa ngi toog ak sama xarit ci dalal. Mm-hmm. ma wax ko mais c'est que nit ñi dañ dul seetlu xam nga nun ren nawet bi amut depuis presque deux mois nga ñu ngi xalaat ay bekkoor sàmm yi seen jur yi ñu ngi loof ñu nga ci àll ba fu la ñuy ñax ñax amut léegi jur yi ñu yoroon ñu ngi ñu ngi ñu ngi loof ba buñ sàgganu buñ amul lu leen jàppale dañuy dee ci sama xalaat man am na ñu ma ko waxal am na comme lu demee ni maa ngi doon discuter ak benn waaye mu ñëw di naan ministre dañ ko war a wàcce ma ne ko yow da ngaa xamul rek ministre bi lii mu def moo tane ci ñun parce que bu ñu bàyyi woon Mauritaniens yi ak Maliens yi dugal fi ay xar xar yi fees dell ku ne am xar ci na ko bëggee bu ñu paree suñu mbokk yi nga xam ne dañuy sàmm ak bekkoor bii ñëw ak nga xam ne yàlla ji tawul nga xam ne xar yi ak nag yi ñu ngi sonn ci àll bi am amuñu ñax parce que mun la yor ay quatre cent cinq cent têtes de bœuf ak yor deux cent têtes de de mouton nga di leen dundal. gouvernement bi la ñuy yaakaar di xul vivre de soudure nañ ñu dimbale nañ ñu dimbale nañ ñu dimbale gos bi yor ministère bi nag pël la moi je le connais bien man def naa bulal man baayam laa xëy na war na ma xam bu ma gisee mhm. parce que maag baayam Kelly Sadio ñoo doon ànd boobu bi may def bulal il avait deux ans mhm. il a été très lucide daa dugal après mu bàyyi pour permettre da am ñi nga xam ne ñu ngi yor ay jur ñu mën ko jaay moo tëj frontière seulement nag nit ñi kat du tëj sax mais frontière bi ñi ñëw sax waruñu parce que naar bu naar dañ daan jógee Mauritanie di di sàmm di di lekk suñu eh, herbe bi di lekk suñu ñax mi ba si jaay ñu lu seer du ñu fi jënd sax kilo suukar ñi bëgg xaalis bi mais ñun dañ seet suñu bopp rek man maa ngi vivre léegi ak ak ak ak les les les sàmm la ak yooyu xam naa li ñuy def naar yi ak Mauritaniens ak ak Maliens yi dañuy ñëw fi jël suñu xaalis dem du ñu fi jënd sax kilo suukar. il ramasse des milliards ici yóbbu ko dem ñun toogaat ñun au détriment de nos de nos propres parents bon ren li ñuy def nii comme que ñoom mënuñu ñëw parce que am na du dañ leen tëj sax dañoo xoox mënuñu ñëw parce que mun mënuñu doxee Mauritanie ba fii décembre di ñëw am jur gi amul lu mu lekk boo def sa jur dee ay ay calcul la woon rek. ok calcul boobu kon yaakaar nga na. ah calcul bi gos bi dimbali nañu ci ndax fi mu ne ñi yoroon ñaari téeméeri xar juróomi téeméeri xar ñu xar yaa ngi commencé loof. nga jaay leen tabaski récupérer de l'argent. ak prix yu cher nag. ah, ah mais mais ah lu mu dañu ñoom itam. non mais fii réew mi toll nii ci boppam jafe-jafe dund beeg yooyu ngeen jël cher yi xar xar bu ndaw mbortu ñu ne la cinquante mille wala soixante mille. mais daf lay neex nga jënd ko parce que yow yaa toog ba heure boobu parce que nit aussi mën na toog ba ni gannaaw suba la parce que dañuy xam nga calcul nag boo koy def da booy booy joué da ngay rek da ngay gagné wala nga perte. dañ naan bàyyi ak jur gi borom jur bi moo koy xontal bañ ne suba la ñuy tabaski yow doo jënd benn saako ngooñ saako ngooñ di jar 4000 francs saako ripaas di jar 10 000 francs doo ko jënd yow nga toog a toog ñu laa fay nga daan yow coppati xaram rek dem ah loolu am na solo mu nekkoon benn partie ci <laughs> découverte tabaski mais euh, yow euh, il pare que. Hmm? suma ma juumut euh, nutritionniste nga. Hmm? di xam lan mooy dundinu doomu aadama. Hmm? tabaski bi nii ñu bëri ñu sant si la. yow comme sa genre gi sàmbeen yi. dafa mel ne am na ci ñuy am ay jafe-jafe ci seen lekk ba lenn li mën naa wax ci mën naa ko tudd muy fër. ah leen ci lan moo koy waral souvent. li koy waral mooy dañuy foqale rek. tàmmuñu yàpp <laughs> xam nga fekkente ne tàmm nga yàpp moom eh. di nga te tabaski bu jotee waxuñu la ngay ne mel ni kuy lekk le dernier plat de sa vie da ngay dee yow comme nga xar mi yaa ko moom yaa ko yaa ko defar mu ngi ci kër gi te xam nga nit nii boo lekkee nii dangay ngay sonn mais nga lekk modérément li li ñuy wax ci li ñuy wax ci ci ci ci l'islam yow boo dee borom kër gi boo demee ba ñëw xar mi bu ñu ko rendee ba lakk res bi ci nga war a dog soo xëyee da nga war a woor nga dem julli ji élément ji rendi nga ñëw boo rendee nga bàyyi ba ñu fees ñu lakk nga jël ci quelque petit kii nga lekk ko nga daal di xaar ba pare ñu lakk bu ñu lakkalee nga lekk lu yem soo bàyyee ba quatre heures cinq heures fekk nga defar laax laaxu nëtëri wala laaxu soow nga lekk sax nga bàyyi guddi gi nga lekkaat laax bu bul topp yàpp bi mais bu fekkee ne am na ñoo xam ne aussi bon bu fekkee ne yàpp bi da nga koy di warax rek ah bu yàggee nga nga fër waxuma la fër mais mën nga jee dee sax loolu wóoru waaw euh, sunu découverte tabaski docteur Alioune Sylla moom la ñu dalal muy yëngu ci wàllu politique ci biir dëkk bi mm-hmm. euh, mais bala ñu jàll ci dëkk euh, politique bi discours bi nga xam ne moom la xalif général baaxee taalibe yi rawatina jullit yi mm-hmm. muy nañu delloo suñu bopp ci yàlla bàyyi ko suñu lépp te maanaam déglu li nga xam ne moom la ñu fi bàyyi laataa tere yi mu koy wax moom ci làmmiñu boppam mm-hmm. suñ ko defee suñu aajo suñu lépp mën na coo defaru noo jàngatee discours boobu ne yaakaar nga ni population bi noonu la ñuy dundee jamono ji. ak ku ko dundul di nga torox parce que boo yaakaaree kilifa muy sëñ Tuubaa li muy wax nga di ko déglu te bu wax loolu yow au lieu nga ana nga seet mu wax nga di ci sàmm lu baax ngay nekk di analyser ba tardé yaay perte sa bopp sëñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu dund at yi at yi du jeex ndax kilifa la li muy wax lu leer la yàlla rek la bëgg ak sëñ Tuubaa moom lu mu waxam ci sëñ Tuubaa la koy demee. il est de nature comme ça boo xam man njaareem laa dëkk xam naa bu baax xam naa bu baax sëñ Mountakha ndax njaareem laa dëkk fa laa juddoo te j'ai presque soixante dix ans soixante quinze ans kon xam naa ko wàlliyu la buñ ko dégloo topp li muy wax du sonn soo moom mosul sonn ci àdduna moom mu ngi ci li mu ne rek te nee na ku dem mu dem ku demul mu dem nit ñi la ñoo tëtu day bu ñu demee léegi boobu sa sëriñ sa waxee nga koy analyser di ko di seke naan non sëñ bi ni mu ko waxee looy wax ko waxee un murid da daan gëm buñ la joxee ndigal nga def ko buñ la teree nga bàyyi mais buñ leen waxee léegi mun na loonu yàlla baal politique bi yàq na lu bare bare ci Touba parce que nit ñi ñeme nañu sax kilifa diwaan man ni ma xamee woon ni ma xam ni ma dundee woon yoonu murid bu sa waxee doo teg baat da koy def ndax da koy yaakaar ñëw jébbalu ci moom yaakaar ko àdduna ak àllaaxira ni ko boo ma teree ma bàyyi boo ma santee ma def pourquoi léegi bu waxee ñu koy ñu koy seet di ko liyaar noon nim ko waxee waa ndam waxee mais kenn deful kilifa du du politique mais dana junj léeg mu wax loo xam ne lii eh, ñi bëgg rek dégg lu ko lu woon ñi nga bëgg dégg lañu leneen duñ ko nangu mais li mu wax téere la li wax fii yëpp téere la mais ñi ko deful gis nañu ko moom daal mu ngi ci li mu ne. waaw bu baax. Ah. ni mu Euh, li nga xam ne discours am loolu la message yi mu joxe woon euh, sant na ci te dafa mel ne taalibe yi dañu yàkkamti woon moom ay waxam ah lu ñuy def dañ doon bëgg a dee da ko moom yàgg na wax di bu yàgg bëri mu nga fi wax mais nit ñi dina xës a xën nag di jéem mu jaar gauche jaar droite gis nga buñ leeralu toppoo danañ gën a sonn buñ leeralu toppoo danañ am jàmm mhm. ñaanal na ñun ñëpp naanaam mu ngi kontaan ci xam na ne nit ñaa ngi dégg léegi li muy wax mais ñun kaa boog yi mel ni ñu ne ko yàggoon dégg xamoon nañ lu mu wax ba yàgg ba topp ko. ñun ñun moom commencé li mu wax ca lañ ne man boo ma seetloo def na def naa fi ndogu yu bari loolu laa daan terminé Touba na ma yàlla bal nit ñi dafa ci am ñoo xam ne dañoo dañ mel ni sëñ Touba indiwu leen fi ñu boo gëmee sëñ Touba sëñ dimbale la nga ñëw ci dëkk bi yoroo dara ba nga ñëw fi dara nga yoru sëñ Touba baaxee la ba nga tabax ay état tabax lu la yor xaalis yor ay Mercedes di jagar jagari mais te li sëriñ bi bëgg fii doo ci def dara mais loolu c'est grave te bari na ci dëkk bi nag bari na loolu ci dëkk bi am na ñi ñoom ñu ngi dëkk dëkk bi mais bokkuñ ci dëkk bi. ah duñ jox li dëkk bi wax duñ déglu li bi bëgg du ñu defit li nga xam ne mooy loolu murit taalibe murit dañ war a bokk ndey bokk bàyyi di dimbalante ñi am jàppale ñi amut gis nga man sama conception mooy Touba kenn waru fi dëkk di di torox wala ngay new doole. dañ bu da ngay avancé parce que sëñ bi lim ñu wax nañ bokk nañ bokk bàyyi nañ dimbalante nañ jàppalante man bu ma amee ma dimbale kii bu kii mu dimbale kii nee naa leen un mouride ne doit pas être pauvre ici Touba daal kenn war fi souffrir ñi fi am duñ jeex buñ ko dajale woon muy dox di dimbalante kon kon dëkk bu neex la ñuy doon. jaajëf euh, docteur yaa ngi ci wàllu politique. Mm-hmm. mais dafa mel ni daal euh, sa politique dafa xaw a rës. lax ah. lu ko laxal. ah maa gis ñëpp laxal rek ma laxal. non non non mais yow da nga war a def pour avancement politique de politique bi nga war da nga ci war a avancer mais bu laxal. waaw mais maa ngi avancer mu avancer te ñëpp lax nu may avancer. Mhm. lan moo lan moo indi lax-lax bi. ah lii lax bi mooy un parti boo xam ne parti baa ngi ni toog ñu xamuñu kuy chef xamuñu ku diriger parti bi ko am sa xaalis rek boo ñëwee rek làqu ci koñ rek génn rek gaa yi topp la ñu di wa xew ngay parce dañ koy structuré man dégg naa keroog ma jàmbal jaañ wax ci. 12 ans ah mais ah, peut-être. parti ah, ah, fii yi fi amul structure ba nga ko xam. ñaar la PDS la ak tan ak ak PS. waaw yeneen parti bi borom parti bee moom. parti ñooñu ñoo du du poids Mbacké a un problème partout parce que Mbacké ak Touba dañoo bëgg pour ñoo ci feeñ rek. mais soo demee Fatick ku fay responsable soo demee Kaolack barki dem ñu ngi génne ma naan dàq nañu jéen Farba Sarr nangam ñu ngi amul fenn fu am responsable moral bu bu bu parti bi fan waxal ma ko ci Sénégal da ngay xëy rek ñu xam ne yaakaar nañ la ministre lañ la def yaru nga dara ñu topp la mais tu n'es pas nommé parce que man mënoo ma génne parti bi bu parti bi séddale mënoo maa xañ kon nag amul amul responsable nañu wan dëgg rek. man man affaire pure et dure la mais man dama ñëwee dëgg man yooyu du ko kafaale man du ma fi wax loo xam ne lii pour mu neex Macky Sall te gaw ma ko Macky Sall sama lépp la maa topp depuis douze ans nommé guma dara mu décoration sama mosuma ko ci am waaye man dama li mu cay wut mooy dama ko gëm ma topp vision ak politique ma ànd ceeg moom mais gëmoo moom mu war maa dundal. wala mu war maa defal leneen. alors wax nga ko nee nga parti bi amul structure rawatina fii ci Touba kenn xamul kat mooy chef kan mooy mais est-ce que euh, au début bu fekkonte ne nangu ngeen comme mën mën naa citer man personnellement. ku mel ne Moustapha Cissé xam ne tey yàlla dénk na ko ndombay tànk yi gën a kawe ci réew mi ba ci sax euh, au international. ngeen nangu ne moom moo fi nekk am doole nan topp ci gannaawam comme ni mu ko yàgg wootee te kenn bañ cee teg benn mbir xam ne maanaam da nga jàpp ne yow la est-ce que kon loolu du yàpp ne da ngeen avancé. danañ avancé waaye man tey jaxate su ma yoree xaalis wala ma yor ndambu tànk bëgg nga topp ma man maay def tànk nga topp ma xam nga gars yi dañ dul calcul ki nga xam ne moo am doole am dara day fexe ba nit ñi topp ko waaye moom nit ñi duñ ko topp. ndax ndax moom dafa dafa am ba pare war a dolli dooleem ñi muy dolli yoruñu dañ koy yaakaar ce que su ma ñëwee nga toroxal ma wala su ma ñëwee nga jàndi ma. wala su dara amee su ma waree am li nga xañ ma ko du ma la parce que politique jëm la laxira ñu politique wala ñu ngi dund xam nga loolu moo différencier gis nga ne ñi jànguñu politique man 70 maa ngi PS man jeune socialiste laa débuté. j'étais très formé dem naa ba ba nekk responsable responsable régional des jeunes à à Diourbel xam naa ne ay congrès dem laa dem yëpp dañu daan formé ma xam ce qu'est un parti mais fii ñoom li ñu xam. ce qui est un poste ou un pouvoir lañ xam nu may def ba folu wala nu may def ba nommé ma wala man kenn ma dara mais parti boo ciy dugg war nga xam ne parti bi vision fii la jëm nga nekk nag ñefeel sa bopp ba pare ànd ci parti bi waaye fekkee yow da nga cee dugg rek yéen nga pour na na sa waay génn rek ma toog wala lii laa bëgg ñu nommé ma ko bis bu ne ñu ngi dem di ay di def ay ay alliance di wut ku leen nommé ah ku ne ngi lijjanti man kenn joxu joxuma dara kooku li nga pensé à à à former ce ah bon ma it moom tam xëy na loolu loolu mooy jeu mu bàyyi rek. ah mais bu bàyyi rek est-ce que loolu tamit am na avantage ci yéen. ah non amul kay avantage ci ñun. kon nag yéen lu ngeen mën a soppee affaire yi. ah xanaa di wax rek gis nga man maa ngi wax rek ñeneen ñaa ngi wax de. mais wax rek koy faj boobu ak léegi yéen wax te fajuwul. Ah, ah mais ah, war a woo léegi koo xam ne war na leen mën a doy ci biir Touba gii ak bu buñ toogee am ko facilement. bu ñu daje woon bu ñu dajale woon moom Macky Sall bu noonu yooyu yoo leen ngeen seet ku ne xam nga ki nga ki la mais fii Touba amul mu ne xamul woon am naa tuuti xaalis rek ma génn def feu et flamme gars yi topp ma ma dugg ci koñ bi tuuf gars yi ah joxe 10 millions ñu séddoo ah ñu daal ne ma moom moom ah, ah non man dem xam nga ki ko def moom da ngaa ñëw fii waaye man je l'ai entendu. comme yow da ngay def lu ni mel wala. man je fais du social. man 14 quartiers ci dëkk bi yóbbu naa fa ndox ak jàkka bi doon te yow xamoo ko kon xam nga ne man defuma noonu. Hmm. fi mu ne yéen xamu leen ko am na ci nag ñu ci xam yoo xam ne léeg ma yóbbu leen inauguré ko am naa quartier yoo xam ne ba ma fa defee ndox ak léegi barke Serigne Touba ëpp na trois ans dellu ma fa parce que defu ma ko pour politique moom laa la wax ne la Touba Touba boo fi ne bu la Serigne Touba mënee gan da ngay dimbale ngay dem ci ñi néew la gan mais c'est boo xam ne maanaam day def dara hmm? te du politique taxut mais politique yi xam nga loo def xanaa xamum loo def doy àdduna parce que da nga wax léegi ne da ngay defoo def ko ko ah. mais politique taxut nga def ko parce que ah. demaatoo fa waaw ah. te pourtant politicien nga buy def ay action xam euh, ci départ bi da nga ne damay defi dara parce que responsable politique la sama militant ña nga fa waaw waaw mais ñooñu ma ko defal hmm. tey su ma fa demal sollicité seen waa jox ma ko ñooñee su ma fa demee hmm. nu mu fa demee ñu woteel ma hmm.

ah nit ñi booy jënd te ah, wax laa la man fekk da ngaa ñëw di ma jéem a jënd ma bu ma neexee bu ma jubee bu ma amee ngor ma na yow bu ma ma dongal ma mbëkk mm. mais xoolal nit ñi def café yi man ni dana ma kafeel fii bu ma déparé mu kafeel saa bu kafeel saa dàgg defee mu kafeel Mbàkke bu kafeel day def vingt café kooku mu àndal <laughs> mais ñun ñëpp ci benn parti dong la ñuy topp ah dañuy roulé bu ko dee l'effectif du mag moo tax ñu noonu pas gagné ici effectif benn groupe la benn noyau la loolu rek la ñuy dund dañuy def bu tey ñu ne wër ñu ne woy woy woy diw moo yore affaire bu ëllëgee ñu ne woy si laa ko yor bu ëllëgee ñu ne ñoo maam xare ko yor bu dañuy topp di lekk rek moo tax on on on progresse pas. mais yéen ñëpp nag il n'est pas temps ngeen dajaloon nag waxtaan saa ngeen xaar Macky woo leen. Ah, teg leen ci yoon. mais yéen xam ngeen kan mooy kan xam naa kan mooy docteur silla xam naa kan mooy maam xaar yi xam naa kan mooy. mais ku ci nekk war ngaa mën a peser bopp. wala peser sa morom xam li mu jëriñ. su ma amul honnêteté def ko nag parce que man tam man xam naa ne yaa am man ba pare te bëgguma nga jiite ma nag du ñu woo day am ah waaw moo tax nag il faut borom parti bi moo naan def leen li bu boobaa nag bu ñu ko defee mu arbitré dana xam ki jiite. mus ñu fee woo kenn ne diw yow la. ah eh, wax rek woo. da ñëw rek ni yóbbu euh, président nee na. te fekk yow. barke Serigne Touba waxul la dara mooy <laughs> yow nee na rek ngay dégg. Eh. waaw. wala nga dem lijjanti lijjanti lijjanti bay ne la waaw rek nga départ mais bu ñu nee waaw aussi te la base ne répond pas du baax. ah oui du baax. Uh-huh. alors euh, mbokk yi seen découverte tabaski docteur Alioune Sylla la ñuy dalal euh, ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, conseil départemental. Mm-hmm. bi nga xam ne maanaam démb rek maa ngi ciy waxtaan ak benn benn waay mu ne ñoom wax dëgg yàlla reconnaître lu ne conseil départemental am na yow en tant que politicien yaa ngi dund lu ah oui man yëgu ma ko woon ne man c'est parce que conseil départemental bi ah ki ko yoroon opposition la nekk moo tax te fii nit ñi boo xasee jël sa li ngay jël kenn du la topp kenn du seet ndax yaa ngi def kenn du bind comme font les les Dakar la ak yooyu di kaas fii ki yore ki yore conseil départemental boobu ba tey xamu presque xamuñu ko sax ñu ko sax. gisu leen ses activités. ah man de gisuma benn activité am xam nga daal ñu ngi seen ndox rek léeg-léeg ñu. ñu defar seen tàngal seen café naan wala seen budget waaw ñu ngi seen ñu ngi koy déroulé mais bu ñu koy déroulé en cachette comme ça mhm. yow xamoo ci dara mënoo dem ca réunion ba ñoom waroon nañ léeg-léeg ñu def ay sortie def ay conférence de presse mhm. bu ñuy dem di inauguré dara ñu ànd ak yéen ñu le conseil départemental a fait ceci man gisagu ma xaw ma xëy na nag def nañ waaye ils l'ont fait peut-être à mon insu mais waroon naa ko yëg ndax même lu ma leen contre contre bu ko defee lu baax ma def na lu baax ah ok yow fàtte naa yow ci laa mel ne conseil municipal bi nga bokk man kay dàq nañ ma bu yàgg bokkatuma ci a ah, dama ko xam xam xam ko de jékki-jékki rek ñu écarté la ah bu ñu xëyeen dañ maa ragal wala man daal nekkoon naa ca di liggéey musuma musuma yàq di góor def lu ma mën waaye jékki-jékki rek mu jël liste bi ma déposé sama kayit ñu rocc ñu dugg luñ ma ñu rocc ko loolu nag mënu ma ko xam te fii dañ lay jël rek doo wote mënoo dem di xaar kaasi wala nga laaj lu tax nga dàq ma mm-hmm. fii daal bépp moom daal wax fii fii dafa mais mais yow xam nga dañ la dañ la dénkoon dara. ah ci conseil bi. Ah? nga yoroon ko. ah buñ ko roccee ci yow war ngaa mën a dem dikk ne man lan moo tax ñi dindi ma. ndax sama liggéey dafa avancé wut wala boog jàppoo ne maanaam déggoo fenn par hasard ñu naan yow li nga yoroon mënoo ko. mais kan nga koy wax. kan nga koy laaj ku la dindi. ah ku ma dindi mooy liste bi dañ ko déposé ña ko déposé man xaw ma ñan lañ teg kooku mënuma wax mënuma wax diw la parce que da ngay déposé rek sa carte d'identité mhm. bi mooy tànn. Mhm. sëriñ bi am na safam. xëy na mën naa am jaxate mën na caa nekk mu soxlu ma wala mu denc sama kayit man mën na ma ko xam waaye xam naa ni ak sama akulaay taala li ma fa liggéey liggéeyuñ ko ndax dem naa fa cinq yoo xam ni au niveau de l'état civil zéro faute dimbali naa ñi mu war a dimbali ñëpp daanaa signé ay cinquante mille actes par par mois kon kenn tardé foon daanaa dimbali xale yi dama nga laaj leen c'était mes amis parce que man équipe dama ko formé woon ba nga xam ne dañuy liggéey correctement la preuve nekk bi ko bàyyee léegi c'est quatre ou cinq ou six qui signe te dañ leen di fay te man kenn musuma fay musuma lekk dërëmu communauté daal musuma lekk essence am musuma lekk dërëmam même ba ma réunion en conseil bu ñu ma joxee per diem bu ma génnee xale yi la koy may parce que dama doon liggéey ngir Serigne Touba rek mais sant naa ci yàlla parce que xam naa ni am naa satisfaction parce que du ma fa dem ba ma fa duggoon tey maa noonu yow da ngay sax xale yëpp may daw kara jàpp ma ku nekk naan ma yow boo fi woon kon man j'ai marqué mon empreinte là-bas. alors euh, dernier mandat ci ngeen nekk. Mhm. est-ce que yéen a ngi xalaat seen avenir ci wàllu politique fu ngeen fa fu ngeen nar a jëm bu ci yàlla àndee. Mm, ah, moo tax ma wax la loolu suñu wul mhm. duñu xam fu ñu jëm ah parti kay da am ni kii moo war a jiite kii moo jóg ko kii mooy nangam mais su Macky sal bàyyee nii musiba day am. ku nekk day wuti maanaam foo la ngaa. ah non non nooy def nooy def. xanaa man du ma déglu rek ba déglu téléphone rek ñu ni jaxate rek ma daan dem préparé a sa bopp man ah. toog di seetaan ah, maa ngi préparé sama bopp de. conseil départemental bi. Hmm. kan daalaa ni ñëpp. wax naa ko génn nañ ko daga ak yàgg na. Ah man yàgg ah, ah boo toogul dañuy jël ak dëgër fa ne la am kii moo fi nekk di àndal ak moom. Hmm. nañ ko na ku ne bëgg. bu boobaa moom danañ woo xanaa boo amee juróom juróomi doomam yi bëgg. Hmm. danañ woo nag. man loolu laa yaakaar waaye nag bu ñu nee doom yi ragal waxuñu dara day jël kenn rek dugal fi. da nga institué conseil départemental. na ñëpp fi mu ne li may ñaan man sama sama morom yi collègue yi nañ nañ am juróom juróom benn APR ñu taxaw ñëpp bëgg. Mhm. bala ñu ñu tànnal. xanaa dana lu ma. waaw il faut que yéen ci tànnal parce que ñoo parce ñoo yaafus. ñëw na fii ni yéen jéem naa leen a nukki ba tàyyi yéen a ngi ci biir déeg bi rek parce que ñun tamit nooy nangu. Uh-huh. soo nee ci déeg bi doo fiti. mais daal kon gars yi woote fii naan mën a mën a mën a ñoom daal. moom mën a gaan yow rek fii. joo uh-huh. rek uh-huh. fii. bu ñu tànnal woowul ñu defaru du baax de. alors ñu ñëw ci assainissement wu dëkk bi ah. euh, yéen gis ngeen ne dëkk bi rawatina nawet bi ñu dëkk man amoon na fi ay travaux ak soppite yoo xam ne ñi ngi ko fi doon def mais jusqu'à présent am na ñuy jooytu ba léegi ne. Euh, des na daal ba léegi en tant que Touba yéen nag yéen a ngi ci doon liggéey tamit fu ngeen ci toll ak lan ban lan ngeen di xelal tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yor li ni mel. waa liggéey bi ñun ñu ngi ci woon waaye xam nga ni ñu ko doon def aussi euh, c'est c'était un peu en ordre dispersé nga liggéey aussi il faut que dañuy dañuy di waxtaan di réunion di jël stratégie di di ko def en ensemble mais ni ñu ko doon liggéey aussi léeg-léeg une bonne volonté mooy ñëw nit ñu jàpp ci mu liggéey dëkk bi defar li mu war a defar. bu bàyyi du am suivi parce que réunion wuloon nag nit ñi aussi waxtaanuñu ba seet ñan ñoo war a toppatoo loolu la bu jeexee dañuy defat ba mu baax mais doom koo ñëw mun la uniforme koo ñëw mun la yow joxuñu la liggéey bi nooy def Touba it loolu mooy mooy mooy xaw nekk erreur bi tuuti parce que dañuy war léegi lu ñu fi defati bu ñu ko ñoo xam ne comité de suivi lay doon mais bu ne amul comité de suivi du ci mën dara parce que da nga ñëw di wax ne mun la yilifoo moom moom sëñ Touba laa yaakaar yamal fi nga war a ñoo fi yem doyul nooy def man j'ai essayé même de faire de la sensibilisation ici sama kanamu kër gi gars yi dañoo taxaw di fi saw keroog ma leen ñëw yii rafetlu mais waaye dafa ne ma bu ñu bu ñu tànqal sa kër gi su ma ñëwee doo tax nag may dax te man du ma ko dax yéen a ngi def ay force ci mbedd mi loo leen di wax nangam nangam ba daa mujj rus sax dama ko bàyyi te loolu aussi dama ko doon yedd rek. mais euh, xas na ma ci sax. mais à part là des forces yi nga xam ne ñu ngi am ci mbedd mi yooyu yaakaar nga ni am na solo fii ci Touba. ah am na mooy li ma boogoon dañoo toog liggéey nii lii la ñu war a def ñëpp dégg ko moom comité de suivi ñooñu la mën agir mais yow tey jaamur bay gas sa mbir dama sax ñem moo ko bu ko gas jaamur mais man fii am na maa ñu fekk ñu sànni xar mu dee fi sama gannaaw loxo bi il faut c'est mais nag il faut mu am loo xam ne lii ñii ñooy toppatoo lii malheureusement nag loolu moo amut mais yow yow dëgg dëgg dëgg dëgg fi ne nii say activité politique fi ne nii hmm. euh, lu ci ëpp café ngay def café man suñu feebar da ren yëpp café wu man café yooyu du ma café café café du café da nga moom nit ñi activité ay PIT na mhm. moom bu gën ñu lu mu joxe mais say activité fi ne lan la sama activité daal man activité sociale laay def a bari ak relationnel mhm. parce que pour préparer le terrain da ngay il nit ñi moom moo leen nit ñi juróo leen dundaloo leen mhm. ay taalibe lañ ne yow da ngay essayer jaay leenu taalibe wan leen ni di nga am am nga cofeel ci ñoom ba ëllëg nga soxla ci ñoom politique boo dul def noonu loo ame da lay rëcc rek parce que nit boo ñëwee ak moom ci xaalis bu la ko joxatul mu dem il faut da nga ñëw mu par des sentiments mu xewle nga ñëw léeg nga romb ko xam ne war nga ko dimbale nga dimbale ko léeg am xew-xew am nga yëkkati sa ñaari saako ceeb jox ko loolu du du du du kii sax mais dafa baax mm. ah mu am ngénte nga ñëw taxaw fa léeg-léeg tabaski gi ñëw nga naan ah léegi day ah, sama xar ñaari junni yi jënd ko soble ndeysaan mu xam ne yaa ngi koy xalaat mais boo boo demee ba wut la mën a jàppale. waaw euh, muy social boo xam ne yaa ngi koy def mais après tout cela yaa ngi koy def. Mm-hmm. ci say propres moyens. Macky Sall moo lay woo ci pet ne la docteur xaalis a nii demal liggéey ci wala boog euh, kenn sa doom euh, boo xam ne maanaam. Euh, jege na la lool ci yege ne nguur gi tamit muy euh, Ablaye la dégg nañ ko tamit ci activité yi muy def hmm. ñooñu xaalis bi ngay am macha allah alhamdulilah euh, ci ñooñu lay jóge waaw ñooñu lay jógee kon yaa ngi fayeeku discrètement ci côté Macky daal mën naa ko tudd man non non non man Macky joxuma ko Macky bu ñëwee dañ naan ana ko yore zone nangam yow vous êtes des journalistes vous êtes est-ce que mës nga maa gis fu ñu séddale xaalis souvent on m'appelle même pas ah Cheikh Abdou Bali moo yore affaire yi ñu dem këram man il ne m'appelle même pas. Mhm. je ne suis jamais allé là-bas. foo jëlee ko li nga yor. ah sama doom mooy xaritu Macky Sall Macky di magam maksal bu bëggee mu gagné foog da koy appuyer bu koy appuyer nag fii te xam ne am na structure bu fi nekk di jël appui Macky Sall mu ñëw ni ma papa damaa bëggoon jàppale Macky Sall léegi am lii nga dugal ma ci nit ñi képp ko bëgg Macky Sall képp ko am mën naa wut ak Macky Sall koo xam ne kii bëgg na Macky Sall nga jàppaleel ma ko. Mhm. lay demee. Mhm. moo tax man sama xaalis kenn du kenn ñëw taxaw fi ne ma loo ko jëlee. kenn du ma laaj compte rendu. Mm-hmm. amuñu droit ma ko moom. waaw ma koy jox ni ma nag toog doy nag Macky Sall bu baax may dox loolu nag. Mm-hmm. man fi toujours campagne da ngeen ko xam dañ lay dàq fee. mais Macky Macky Macky moo tax Macky reconnaître loolu ba daal lay dikk ne la eh, docteur am 4 bi waaye demee ci waaye say activité <laughs> barke Rasulullah Macky jox ma 4-4 bi sama doom moom ma ko jëndal. deux quatre quatre laa yor yëpp sama doom moo ma ko jox moo ma jox bee mu ci biir moom lay demee kii yooyu bu ndaw bi moom lay duggee ci ruq yi mën a campagne waaw uh-huh. waaw loolu kay amul yaar yi laa yor benn kër aw ma tabax beneen aw ma magasin uh-huh. man ah amul stockage ah déedéet maa ngi nii uh-huh. waaw man daal libre naa man xam naa ne daal daal sama doom dana dimbale Macky Sall mais sa doom société boobu mu yore ci na liggéey bu mu entamé woon à Touba. Ah. Euh, am na suivi am na njariñ ci askan wi dëgg-dëgg te nga xam ko nag te mu war mhm. fekkee am na rëq-rëq tamit nga wax ñu ko. waaw am na rëq-rëq bu dul jeex ba mu ñëwee la première fois pour pour pour sëkk sëkk Touba gi sëkk ñi nga xam ne ñoo dañoo taa ak yooyu ak dimbu leen indi fii ay engins moom moo mu indi oto yi mooy fay chauffeur yi mooy fay ñuy liggéey moo indi carburant mhm. laaju fi kenn dërëm la première année. zéro parce que nit ñi dañ daan dugg ci quartier yi rek fu ñu seen mu taa wala fu ñu war a defar ñu defar ko ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa deuxième fois bi dañoo ñëw ñu téléguidé leen dem rek récupérer leen ñu séddoo ko di jël ay quota am na ñoo xam ne jël nañ suuf sax soxlawuñ ko am na ñoo xam ne dañoo màggal ba màggal gi jeex fañ dëkk dafa taa loolu c'était pas bon mooy li ma la wax il faut il faut mu am il faut bu amul bu amul benn benn comité de suivi ci lépp looy liggéey rek du baax mm-hmm. boo ñëwee teg nii léeg-léeg gars yi Touba dañuy def pression boo xam ne bi dañu lay dévier. mais après woo nga ko ne ko arrête parce que lii du noonu avancé wul. non wala wala naajam ne naa ko nag nii boo ko dee def aussi da liggéey ci li neex rek euh, mais demal ci taalibe sëñ Touba yi. defal kilifa nag bu soxlaa bu la nee defal ma lii nga defal ko waaye boo jëlee jox ko kilifa kilifa yi seet kilifa yi ñoom xamuñu sax ñi tax ñi taawul dañuy bàyyi bekkaay mais ñëw seet ma ma ma doyal <laughs> loolu loolu aussi jërëjëf euh, docteur 28 euh, ñoo la seet si woon euh, ana loo gisee seen liggéey noo noo leen orienté après tamit xam naa nga tàggatoo rek mbokk yi ñuy seetaan. ni mu gisal mooy kontaan ci te yaakaar nag danañ koy génne nag mhm. xam nga man am naa benn naxar bu metti ci wax naa ko Dakar wax naa ko fu ne gis nga yéen journaliste tubaab li ngeen di liggéey bu ñu ko répercuté au niveau national kon waaru sax. mais ndeysaan yéen da ngeen di góorgóorlu vous faites tout pour mu jàll mais dañuy ñëw nañu flash benn benn kii ci ci télé bi flash ñu ci te ñi ñi ne foofu gënuñu ñëpp xel. war nañ ñëw di génne suñu nu ñu koy génne nation bi yëpp di ko dégg mais duñ ko def. yéen da ngeen di liggéey bu mu bëgg a ay da ngeen di yor ay ay ay affaire yoo xam ni bu ko réew mi doon dégg dinañ jëriñu léegi li ma laaj ci xar yeeg ak ak ak tabaski bi mais y' a beaucoup de gens qui n'ont pas comme sa mais xëy na xar manqué na mm-hmm. mais sauvé nañu tout le monde rural bi nga xam dañu naroon na ni ñu ngay jënd jiw ñu ngay jënd ceeb mm. ah, xar yaa ngay dee nag yaa nga boori dol yi ñu ngay amul lu ñu lekk na gouvernement bi daw gouvernement bi li mu yor kës ni nga xam ne euh, demagul mu dugal ko fa mais on va on va périr man su ma la am naa benn sam benn xarit ñu sama xarit pël la mu ngi nekk booru njogob moom mu nga màngoon gannaaw doli mais bi ma ko wéyee ci tabaski gi naan ma ñetti xar laa dese tubaar kàlla sama xar yëpp jaay naa leen parce que jaay xar yi ñu loo fi téye sa xaalis bu xaraamaatee nga jënd reconstituer sa bétail moo gën mu ne ma lii bu amuloon daa gis pël bu xaru noonu la moo koy naan bu lii bu amuloon da gis ko xaru parce que danga dee deele quatre cent têtes cinq cent têtes bëy dee kooku da ngay da ngay da ngay da ngay sacrifié wu jërëjëf mbokk yi doon seetaan 28 ah. pro ñu ngi am mbégte incha allahu rabbi 28 pro nag équipe boo xam ne nii équipe locale la boo xam ni maanaam eh, li ñuy def eh, eh, ñëpp ngi koy seetaan au niveau international Serigne Mbacke Fall Talla Samb Bekay Ndiaye euh, Sidi Diakhaté moo nekkoon ci présentation bi docteur ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci dalal bi ñu la dalal ci nangu gi ñu ko nangul tamit di leen dig daje ci yeneen jotaay incha allah.